waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal gépp di leen wax ni kontaan naa trop tey pour dafay interview euh, fi may njëkkee rek mooy si question yi mooy que ku nekk xam na ni làmb da toll si statut boo xamante ni li ma leen yàgg wax rek too dara looy prouver mooy que làmb si roi des arènes la yem donc man yàlla def na nekk naa ko deux fois loo xam ni bu ñu fàtte benn mbër mosu ko def Sénégal benn mbër mosu ko def kon loolu bu la yàlla dimbalee tey. Euh, jox la ko donc sant yàlla rek nga war a def maa ngi sant bu baax kon sama carrière li ma desee mooy rafetal ko rek laa war a def di des ci sama carrière génn si porte bu mag bi donc bi mooy que euh, làmb ku nekk xam na ni ñaari saison yi ñu génn làmb doxul doxul si côté yu bëri nag si facteurs yu bëri si promoteurs yi si mbër yi ah si sponsors yi côté yu nekk ku nekk xam na ni làmb na seen a dox mais rek euh, loo gis si àdduna y a des hauts et des bas voilà donc day toll jamono boo xam te ni day dox toll jamono boo xam te ni du dox ku nekk xam na ni deux saisons yi ñu génn vraiment saison yi des na dese na neex di ñaan yàlla nag saison bi di ñëw dàq si saison yi ma sa am donc beneen bi mooy euh, euh, man làmb nee naa leen amatuma si lu may tànn euh, c'est vrai rëg-rëg génn na def benn sorti ne def bu bëri ak man man bañu ma ko bañu ma bëri ak moom pare naa pour bëri ak moom parce que làmb dafay dox te li nga wax ni dañ war a def grand contre petit c'est normal parce que ñun bi biñ ciy tollu dañu mayoon chance ñu bëri suñuy grand te ñun tey gisuma lu ñu empêché pour ñu parce que yàgg naa ko wax sama interview nañu jël xale yi ci suuf ñu renforcer ci kaw sinon ñun rek ñuy bëri suñu biir te bu yàggee nag day dem ba day soof amateur yi kon il faut jot na tey actuellement ñi ci kaw ñi ñuy wax ténor yi ñu tendre la pêche aux jeunes may xale yi sens ñu bëri si kaw lamb ji man amal beneen ouverture man amal beneen xar kanam man pare naa pour may xale bu mënti doon sens waaw pare naa beneen bi mooy euh, comme li ma desee yaa ngi may laaj ñaata at moo la desee donc ma dese na ma deux ans mais mën naa bëri deux ans yëpp mën naa bëri benn saison sans dépend li ma leen waxoon rek lamb moom yaa koy sentir def ko bis boo nee ba sentir too ko rek yaay bàyyi nga dem def leneen euh, li ma laaj mooy. bon sant naa yàlla sant naa yàlla parce que man tey euh, dama doon wax ni euh, dafa am lu bëri loo xamante ni man sama gëm-gëm la sama gëm-gëm la te yàlla mu may dimbali boobu ba léegi maa ngi koy def mooy que c'est rare nga gis mbër moo xam dafay jógee si département am surtout si département Mbour di jógee foofu dem di bëri ji directement Dakar di ñibbisi nga am ndam nga ñàkk ndam nga ñibbi njëkk nga amuñu boobu tant que woo Dakar mënuñu woon te basé wu naa Mbour ba yàlla def. benn mbër musul am Sénégal benn mbër musul am ma am ko muy nekk deux fois roi des arènes loolu yombul sant naa si yàlla bu baax a baax a baax euh, MMA nag li ma ci dugal mooy bëgg-bëgg la parce que bi ma siy dugg làmb ji dese na ma sept ans ou dix ans ma ciy dugg man bi di ko entraîné am Montpellier ak sama coach Ligue Estienne euh, maa ngi koy nuyu au euh, di wax ni bi ma si dugg xaaruma ba nii maa ngi fenn gare soo si dugg lu ma bëgg la fi may wax ak yéen nii vraiment maa ngi si am ay ambition yu mag a mag a mag a mag a mag bëgg-bëgg moom ma si dugal du du alal ji du dara dama bëgg tout ce qui est sport de combat may am ko seetaan mujj gi ma dem si club intégré wu bu nekk Montpellier Fabrègues dafa entraîné euh, voilà donc yàlla def tey may mbër bu njëkk def MMA Sénégal ba tey sama rakk yi ah ñoom euh, euh, Siteu ñoom Reug Reug ñoom ñëpp ma gisee na ñu ngi balancé wu si MMA bi kon sant naa yàlla tey. Euh, képp ku si dugg rek dina ne ni ah man de Bombardier moom ma inspiré ba tax man ma dugg si MMA kon loolu sant yàlla la bu baax a baax euh, dernière question bi nag mooy euh, maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp comme ni nga ko waxee kàddu gu mujj bon tukki naa maa ngi fii Paris sori naa trop waaye nag sama xel yëpp mu ngi Sénégal si sama famille maa ngi leen di nuyu di nuyu Sénégal di nuyu amateurs yi di wax ne nag il est temps pour VIP yi parce que loo gis si àdduna dafa am ñuy jiitu ñu si kaw mooy ñi si jiitu rek ñu leen di ñaan dañ kay ñaan sax yoon la yoon la ñu may xale yi sens man ma jël kii kii jël kee kii jël kële làmb jam beneen xar kanam loolu suñu suwee la su ko defee làmb ji jëmaat kanam sponsor ji ñëwaat jëm ñëw nuyu naa waa Sénégal yëpp nuyu naa amateur làmb yi nuyu sama mbokki mbër yi nuyu ah promoteurs yi nuyu ñëpp jaa ngeen jëf